أعوذ a من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rabbi yassir lana al itmama kama yassarta lana al ibtidaa mbokki jullit ñi mbokki yi seetaan Tawfekh TV daara ji TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal tey nag fii ñu ñëw moom mooy jàmmagën jàmmagën nag ku ko wax sa xel dem ci Serigne Mansour si borom daara ji waaye sa xel dem aussi ci tool yi nga xam ni moom la Serigne Mansour si borom daara ji daan bay fii ay hectares yi hectares yi hectares ñu di ko mu daan ko bay daan ko ànd ak mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi waaye at bu jot bu ñu egsee ci bis bi nga xam ne ci la ñuy déqi gerte gi ñu woo taalibe yëpp nag ñu ñëw ànd ak euh, tabaarakallahu kilifa yi ànd ak sëriñ si ànd ak njabootu Seydil Hadj Malick ànd ak ànd ak njabootu sëriñ Mansour si borom daara ji yu ñëw ñu déqi tool yi tey nag ci la leen fi tawfeex ñëwal ak daara ji TV ngir wan leen nag déqi mi ak pasteefu bi nga xam ni taalibe am nañ ko tey ci ñëw gi nu ñëw fii ci seen wooteb sëriñ bi nga xam ni ki kaw jiite woote bi mooy sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si bu sëriñ Mansour si borom daara ji nga xam ni moom mooy taawam jiite liggéey bi ànd koog rakkam yëpp tey nag Tawfekh TV ñëw fii ci jàmm gën fas len deugtal lépp lo xamni mi ngi fi xew waye fas deugtal détermination bi ñu gis ci talibé yi ak engagement ci liggéey bi nga xamni mom mo fi am. ñi leen di nuyu di leen ziara di am mbekté ak contenté ci ñëw ci toli jamagal yi fa tabaarakallah ah li nak buñ fi dé ñëw jaadu na ndax biñ fi dalé ñëw légui yaaka naani ay tout tànk lañ ñi ñëw jamagal te lépp rek Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour moko waral ndax mom ak suñu wajur la won dem suñu waajur waajur màggat ñu ñëw sax ci tool yi waaye ñun nekk ay doomam ñëw di ko ñëwal ci tool yi fa tabaarkalla tey nag mu tombee jàmm gën ak jagsaaw yàlla dogal jagsaaw lañ njëkkee ndax ñun kër Seydi Hadji Malick moom ñëwuñu dem fii bàyyi fii suñu waajur sax nee nañ woon ndax loolu dina métti ci yow ma ne ko jar na ko waaye yàlla dogal ma ne am nañ paas rek nañ sabalu ci barke Seydi Hadji Malick dinañ dem si ñaari yëpp yàlla dogal na ñu xëy dem jagsaaw fekk fa Serigne Diop mu baax mi daan ne yóbbaale jagsaaw nañu yéegal gratuite bañ fa jógee ñuy waxtaan yëgul woon jàmm gën ñu jóge waat jak saaw barkeelu jak saaw mu ànd ak ñun ñu ñu jàmm gën moo tax ñu ñëw jàmm gën pour barkeelu ci tool yi fa tabarakallah kii itam di suñu doomi bàyyi nga xam ne di fu ñu dem ci lu baax ci lépp loo xam ne fu baax fu ñu dem soxna Asi fekk nañ ko fa muy góorgóorlu ci tarixa bi ñun nag ay ndaw lañ yoo xamante ni fa tabarakallah fépp loo xamante ni tarixa cheikh mi ngi foo xamante ni organisation am na fa incha allah rabi dañ fa fas yéene teg suñu tànk même suñu feebaree dañu joxe ngànt même bu ñuy raam même bu ñuy wàccu dañuy dem ci dañuy dem ndax mission bi moo ñu moo ko laaj fépp loo xam ne tarixa Cheikh am na tarixa Tiwaan am na fi loo xamante ni programme bu mën a doon moo xam Tiwaan la moo xam Buleel la moo xam fu mu mën a doon ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu wér ak fekke ñu dal ñi leen di kontaane yéen ñi tam macha li ngeen def na solo ndax yéen yéen tax nit ñi encouragé wu am na ñoo xam ne information xam ne daawul jàll yéen ñi seen site moo tax nit ñi di mën di dem di yëg programme yi ñu bari ci yéen la ñu xamee programme Buleel am na wala Jaksaaw am na wala Jàmm Gën am na kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñëpp nag wax wax fa tabarakallah waaw mbégte bi ma am mooy fi ne damaa sawar maa ngi mel ne fi ne ko ama a ans ndax mhm. dama bég su ma ñëwee fekk ñoo xamante ni ay xale yu ndaw ay mag ak ndaw xale yu Pastef boo demee fa tabarakallah yëfi paale nii nit ñi kenn ku ne li nga am yaa ko indi mhm. boo demee fi mu ne boo demee da ngay fekk lekk yi doo lekk fa tabarakallah ndax nit ñi bëgg nit ñi encouragé wu ñu lekk jak saaw mën naa ne presque presque mën naa ne presque jeex na li des bariwul ñu jógee fa daw ñëwaat fii fépp mbégte la ndax kenn ku ne li lay dundal li lay dundal moom rek nga ni nga xam mom moom ci nga màgg la mam may don wax sama sëriñ nee na dégg jam sa mam jam sa mamat jam sa baay bu la jamul yow ya teggi yoon wa kon ñun li suñu baay ñoo ci nekkoon suñu maam nekk ci suñu maamaat nekk ci moo tax ñun ci lii rek lañ mën a nekk tabaarakallah euh, waaw bu leel ñu ngi koy waaj xam naa ñu ngi ñu ngi koy waaj a jàpp donte jàppaguñ ko ñu ngi xalaat ñu jàpp ko mercredi incha allahu rabbi ñu ngi jox ñëpp rendez-vous bu leel ku ñu fa dëgg ne massa tabaarakallah Euh, comme ni leen ko waxee léegi rek ñoo ngi fii ci jàmm gën bu Serigne Mansour si borom daara ji euh, ñu fekk fi njabootu Baye Alxaaji Daam Diop Mansour nga xam ni ñëpp xamoon nañ taxawaay bu am solo bi nga xam ne moom la amoon ci hadratul malikiya am ko ci euh, digganteem ak Serigne Mansour si borom daara ji tey ñu fekk fi njabootam ci bis bi nga xam ne ci la ñu woote deqi toolu Serigne Mansour bi ñu ñëw fi nag indi fi ay teraanga di ko jox jaam yàlla yi ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey waaye yamuñu ci aussi tamit daal di jël seen doole di di liggéey comme ni ko taalibe yëpp di defee bala ñuy egg ci waxtaan bi ñu baay la ñu sëñ Babacar ah, maa leen di fay asalaamaaleykum mbokki xadara bi maa leen di tur yéen maa leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant fii li fi nekk lu li fi nekkoon moo fi nekk rek li fi sëñ Mansour daan def sam papa daan ka def loolu lañ fi fekk di ko def góor góorgóorlu si liggéey bi rek waaw dëgg yàlla ñëpp a fi tamit mbokki taalibe ñëpp a ngi fi góorgóorlu liggéey nañ daanaka tool yi jeex na macha allah liñ doon joxe tamit jeex na macha allah ñu ngi sant yàlla di ñaan lépp yool bi suñuy waajur yu baax yi yàlla leen koy yàlla jottale leen ko si barke Seydina Mohamed lan moo gën a waral bu tool yi ñëwee rek ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw ànd ak taalibe yëpp ci loolu dañoo juddu suñu maam yi daan ko def suñu papa yi di ko def maam Gunda daan ko def maam Bakar suñu papa Dame Diop Mansour daan ko def ñu tamit ñu ngi si góorgóorlu rek di ñëw di def seen ginnaaw ñu si góor di def te macha allah amuñu sant yàlla rek daal lañ sant yàlla rek. bi nga ñëwee en tant que taalibe ñoo gis ni sa mbokk taalibe yëpp wuyu si nañ comme yow ni nga wuyu see en tant que taalibe ban yëg-yëg nga am. ah mboo ko yëg-yëg ñi ñëpp ko bokkandoo comme ñoom li ñuy yëg bañ dagg seen yëpp yite yëpp ñëw si fooku maam euh, El Hadj Malick si rek borom daara ji loolu rek la yite boobu la nekk taalibe rek ba faaw. doon taalibe rek incha allah. ndax Babacar euh, am na yéene comme yéene bi nga xam ne moom la way juram amoon ci xadara bi ñaan na yàlla mottali ko ba ba fu ko weesu. waaw dañ ci góorgóorlu li ñu mën rek incha allahu rabbi dañ ko def lépp lu ñu si mën daal yàlla dogal ko incha allahu rabbi di ci góorgóorlu suñu kente lay kattan bokk koog taalibe yëpp nag incha allahu rabbi. Euh, ñun nuyoo xanaa ba pare rek. waaw alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax baax julli ci yonent bi gërëm suñu way jur El Hadj Dame Diop Mansour moom mi nga xam ne tey bu ñu fi teewee moom la ñu teewal ndax tool yii tey mu ma ànd borom daara ji sama turandoo daan ko ànd ak comme ñu ñu ma tey ñu ànd ko sama ji sëñ Babacar ak soxna yi ñëpp ñu teew fi ngi ñëw teewal alxaaji daam ju Mansour ndax teewaayam lañ fi taxawee. macha allah ñu gis euh, diggante Baye Alhaji Dame Diop suur ak njabootu Seydil Hadji Sadji Seydil Hadji Malick rawatina nag njabootu Serigne Mansour lan moo waral diggante bu rafet bu rafet bu ratax. Euh, wax ji kay jeex na El Hadj Dame mu sëñ Mansour bu nit demee ba jël turam tafa koog nga xam ne wóolër la waaye ak taalib bi ak sëriñam la woon ñun kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick sunu maam la woon maam Ngunta maam Ngunta bay la tool maam Seydi Hadji Malick sunu maam Bakar bay la tool maam sëñ Babacar sunu baay taxoon ak taxoon ak euh, Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour loolu moo waral tey ñu ne ñoom Cheikh Habib ak Hadj euh, sëñ Cheikh ñoom ñëpp. tey ñu ñu nekk benn rek continuer